ni ko mag ñi tàmmoo noonu la ko xale yi bëggee ndoxu waalo foo dem fekk ko fa ndax am na fépp ñaar fukki dërëm rekk lay jar ku nekk ak bosam waalo la qualité accessible à tous tàngal bégee ak susetam yii seen ndox mu sell mii di waalo ak seen boisson punch ñoo leen di may seen émission koor gi aywa kon ñu amati bu baax a baax euh, xëyati àndandoo seen émission koor gi euh, ni ñu koy defee suba su ne ci Sud FM seen rajo la première radio d'information du Sénégal bonjour nuyooti leen bégeeti leen ziarati leen yéen ñi nekk Dakar Thiès Kaolack Mbacké Matam Ziguinchor luga Saint-Louis Kolda Diourbel Tamba Kédougou un peu partout au Sénégal vous nous recevez via nos différentes fréquences régionales on vous en remercie beaucoup euh, yéen ñi nekk ci bitim réew également di ñu déglu ci sunu ay plateforme rawatina sunu application mobile Sud FM rajo Sénégal Sénégal partout à travers le monde jërë ngeen jëfati merci un plaisir de vous retrouver comme tous les matins mais comme tous les matins ni ko xamee du ci wéet benn yoon parce que maa ngi euh, xam ne ngoon bu ne euh, dama koy jàpp ci euh, chaîne boobu ñu naan 2STV di ko seetaan muy def loolee ñu naan naafila du jour du noonu oustaz <laughs> maa la defal boobu publicité bu ko defee El Hadj Ndiaye dinaa ko seeti mu fay ma boobu publicité <laughs> naafila bi kay beneen beneen du woon

di nuyu mbokk yi nga xamee ne ñu ngi ñuy déglu ci waxtu wi di leen ñaanal jàmm itam également. Mm-hmm. di sant yàlla bu baax a baax ba mu ñu mayee kattanu nu mën a dellusiwaat fii am ay kaddu yoo xam ne dees na ko rotal. Mm-hmm. Euh, su ko defee ñi nga xam ne ñoo ñuy dékk ay nopp ñoom itam ci seen kattan ak seen man-man. Mm-hmm. ñu mën euh, bu baax a baax jërëjëf. mu euh, loolu ngeen dégg mooy li nekk ci YouTube bi jamono ji puisque on est en direct ci sunu chaîne YouTube ak sunu page Facebook ni ñu koy defee suba su ne gan gi oustaz Maodo Faye nga léegi léegi. Ah, euh, di soppe Sénégal ah jamono ji loolu naa ci ñëwaat bu baax a baax. waaw waaw waaw euh, gis nañ ne Sénégal daal euh, jamono yi mais nag dafa am dafa am dafa am soppe Sénégal bu mu bu mu fi jëlee nag indi yi léegi. parce que amoon na fi beneen soppe Sénégalais yi léegi Sénégalais yi daa mbooj daal lañ taf si seen xol. mais ban la kooku ki nga wax kan la. ah yooyu itam xamoo xamoo kan la. non d'accord kon oustaz yow. foog ma indiwaat la. waaw parce <laughs> foog ma indiwaat la oustaz nga jamono euh, Dame euh, di secrétaire général bu CUSEMS authentique également enseignant enseignant euh, ci wàllu anglais ah loolu duñu koy faral di wax trop d'ailleurs dinañ ñëwaat ci brosse rek ci tënk ci cursus scolaire bi nga xam ne am na solo macha allah ak yeneen yu ma découvrir sax yoo xam ne Dame jot na ci jaar ci ba muy tout tànk maa ngi lay nuyu di am mbégte bu baax a baax a baax ci wuy si gi ñuy wuy si tey ci koor gi bismillah jërëjëf Nicolas maa ngi lay la gërëm. ci dalal bi nga ma dalal ci émission bu mag bi nga xam ni euh, ñëpp dañ koy déglu. jërëjëf ndax euh, solo gu mu am ci sénégalais yi di dugg ci thème yu amal njëriñ. jege jegeel micro bi waaw. léegi nag euh, may nuyu également sa Maodo. jërëjëf ndaxte moom it wax dëgg yàlla dama koy suivre lu bari. Mm-hmm. ci émission yi muy def fii ak 2S boobu ngay wax. Mm-hmm. nga xam ni toujours wax ji dina rafet dina ko woddu te dina ànd ak xam-xam ak dal. macha allah ba ku ne mun ko seetaan. macha allah waaw loolu moom ñu ngi ko ciy ñaanal euh, yàlla gën nàmm xel mi. amiin amiin amiin euh, ba noppi euh, jàppale ko. ci liggéey bi amiin tabaaraka waaw may ko gudd fan ak wér gi yaram. parce que loolu da koy soxla ci liggéey bi. nest te te ko ñun ñëpp. donc di nuyu nag ñëpp ñuy déglu. Hmm. ak di ñu seetaan ci Facebook bi. Hmm. wala ci ci YouTube bi. Hmm. donc seen seen mbokku internet yooyu. ak ñëpp ñi xam ñu ñuy déglu ci rajo bi di nuyu. sama militante ak militant authentique mhm. ak ñi ma bokkal coalition citoyenne le peuple mhm. donc euh, di ñaan rek lépp luñ fi wax mhm. mu nekk loo xam dinañ jural askan wi njariñ ñi ñuy déglu euh, te ñu bañ fee wax lu ñuy xeebe jërëjëf Dame Mbodj kon nekk suñu gan tey ci euh, koor gi maak oustaz Maodo Faye Dame Mbodj nag dama ko waxee sànq ba may tàmbali professeur d'anglais la aussi syndicaliste mais oustaz Maodo est-ce que xam nga ne Dame dafa teel a nekk nag mën heure de grève maanaam xam nga euh, di teela teel dugg daal ci bagage yoo xam ne daal. mouvement yi mouvement yeeg yooyu jàppal bàyyi. Euh, Dame euh, ci mën heure de grève boobu nga nekkoon demoon na ba benn jamono ñu dibbee la sax sergent la fou ndax gis nañ ni yow daal daam daal daam daal macha allah <laughs> sergent le fou ah. loolu loolu yéeme na de. waaw kooku day dëgg la moom sama benn principalu CM. Hmm. boo xam ni. Euh, Souleymane Ndaw la tuddoon moom moo ma ko moo créé woon euh, tur boobu. Mm-hmm. boobu maa ngi nekk classe de cinquième. Mm-hmm. secondaire. Mm-hmm. ñu tooñ ñu suñu classe. ma daan ni léegi daal comme ñun euh, tooñ nañ ñu. nañu génne école bi yëpp grève. booba sax daanaka mun ñoo def discours bu leer. parce que cinquième secondaire ay tuut tànk lañ. ñu daal sànni xeer ci classe yi. troisième yi génn ak quatrième yi. Hmm. ah, ah ak sixième yi ñëpp ñu génn leen. dégg naa loolu. booba grève nag bëriwul léegi ma woon CM ma koddu Kange Sall bu Kébémer. Hmm. parce que man maa ngi dëkk Ngumba Ngeewul. Hmm. foofu la jàng jànge donc sama CM jànge au lycée Malick Sall de Louga foofu la amee bac. jànge Ndar euh, université Gaston Berger. lycée Malick lycée Malick Sall maa ngi fa dem euh, parce que maa ngi fa am bac 92. ah 92 waaw maa ngi am sama bac au lycée Malick Sall en 92. Hmm. donc loolu lañ def boobu ñu ngi nekk ay tout tànk. Hmm. ñu ñu pare bañ pare tamit booba comme grève du comme léegi. dañ ko annoncé rek principal bi woo préfet yëgal ko ko. Hmm. préfet wax ko gendarmerie gendarmerie na comme temps ñoom euh, yooyu bu amee dañuy gaaw génne lañ am ko su néew que boobu daaw ñu bari. ci département bi daaw ñu bëri ñoom gendarme yi mu indi oto gendarmerie ñu yëg ni ngay ñëw. ñu njëkkanteeg ñoom euh, raay ba pour njëkk leen ci xeeru raay bi mm-hmm. daal di ñoom mm-hmm. loolu mooy sama première expérience grève en tant que tout tànk mm-hmm. loolu moom def naa ko booba ñëpp dañu wër nag Kébémer ne xale yooyu ñu ni daam ko jiite ñu nuy wër ñu dem làqatu ci benn kër à Kébémer après ñu def réunion de crise ci euh, mairie bu Kébémer fa lañ ma tuddee daam mboj sergent le fou moom moom moom oustaz oustaz xamoo sergent le fou de ah, xam na ok ah, xam de ah, moom kay fou <laughs> kooku du neex du neex a dëkkal du <laughs> neex a dëkkal du neex a dëkkal mais oustaz tamit da lay wan ne euh, Dame Mbodj mi ñu dalal tey en fait euh, ni mu nekkee nii euh, gaa yi di ko gis muy tàng lool ci yenn sujets yi en fait c'est pas une nouveauté maanaam du lu bees du lu xëy xëy rek mu ne mu nii la war a mel en fait. c'est ah lu yàgg la moom. non dafa am jaar jaar rek xam nga mm. boo nekkee boo amee jaar jaar jaar jaar bi day am jeexital ci yow. Mm. et que d'ailleurs li ma ciy gën a neex sax li mu dëkk côté njàmbur yooyu parce que man lycée Malick Sall foofu la amee baccalauréat moo tax ma xëy na benn at la ñuy jiitante wala yu demee noonu. moo hmm. euh, mais nag dafa am ci ay waxam lu mu wax lu doy waar. Hmm. dañ ñoo tooñ. Hmm. Eh, dafa wax ne dañ ñoo tooñ ñu génn daal di sànni xeer. Euh, kon loolu nag li nga ciy génn li nga ciy dégg moom mooy. gannaaw ba mu nekkee tout tànk la doon bañ ku ko tooñ. kon kay bu nekkee mu kàllaf du mën a seetaan ay tooñ. du a accepter ay tooñ. waaw waaw bu fekkee dafa suite dafa topp suite logique boobu. waaw noonu lay demee. noonu lay demee ba tey. d'accord léeg nit léeg xam nga nit du tàqamti ko lu mu nàmpul hmm. lu mu nàmpul hmm. donc parfois nit dana nekk koo xam ne ki day day yëngu ñu dafa ne nangam ak nangam fekk ne deretam moo mel noonu hmm. daa am ci réew mi ay gor yoo xam ne yii euh, seen bakkan jaral seen seen seen dignité jaral la leen lu ne n'est-ce pas voilà eh, oustaz Maodo jërëjëf euh, ci boobu xeetu euh, tàng-tàng am na quand ñu lay reproché ne en fait loolu yëpp li ko waral mooy na nga nekk nit ku frustré bu ma waxee loolu damay sama xel day dem ci exemple SAEMS ak CUSEMS ñu ne euh, Dame Mbodj daal dafa nekk nit koo xam ne moom dafay bëgg di diriger rek moom daal bu ñu ko nee yaay numéro 2 wala yaay numéro 3 loolu lay bañ yaay numéro 1 rek lay bëgg di dégg bu amul numéro un bi rek dafay am frustration mu daal di sànni bagage yi wala mu daal di kii euh, comment est-ce qu'on expliquer euh, xeetu nit boobu nga nga nga nekk bëggoo yow bëggoo numéro 2. non lool nit ñoo koy wax ñoom ñoo may caricaturer noonu. Hmm. ñenn ñi ñi ma xamul. mais nit mënoo nekk un leader te doo bàyyi nit ñi di wax li ñu xalaat ci yow. Hmm. parce que ku ci nekk am nga baatu ginnaaw. Euh, man li ma jàpp mooy ñoo ñu koy wax mun ñoo duut baaraam ci loolu ñuy wax. Hmm. Euh, Maodo am na lu mu wax sànq lu am solo mooy ñi ma xam ci ngumba ngeewul gi ma dëkk. Hmm. xam ne sama waajuru góor ci rigueur la ñu yar ak euh, da daan wax danaan man kenn du ma àkk si ci samay doom. loolu fi mu ko tegoon mooy moom yarewul ay doomam ci tooñ. ah très bien kenn ñemewul ci koñ bi li may wax waa ngumba ngeewul ñu ngi may dégg. kenn ñemewul ci kër gi. Euh, polygame la woon amul benn doomam boo xam ne ñeme naa génn ci mbedd mi tooñ ñu àkk si ko. Hmm. xam nga loolu bon la ci yaree. Ah, absolument nga tegu ci position yoo xam ne toujours dañ lay yar ci bul tooñ. Hmm. mais nag na nga am fulla ci lépp loo xam ne yow mii war nga koo xeex nga taxaw xeex ko noonu lan ma yare man. Hmm. loolu moo tax tooñ du sama jikko. kon ñiy wax loolu mais bañu loo deuxième deuxième place. non aw ma problème ci loolu mais su ma mënee jël premier jël ko xam nga nit ki ba may jàng. noonu laa mos a mel ci sama jàng. bëgg mun su ma bëgg ko ma raw. waaw loolu amoon naa nag koo xam ne da na ma bi ma ñëwee ba CM2. Mhm. Euh, ci sama jàng foofu laa sonnoon parce que kooku ba waajuram daf ko da ko téye mu nekk daara ba wàcc alxuraan. pour wan la doolay alxuraan. bi mu ñëwee ñu tëb muy di tëbi classe ba tolloog ñun. mu ñëw mun ñu ko raw parce que moom leçon bi su ko maître bii bind ci tableau bi. ndax Maodo dina xam loolu alxuraan bu njëkkee ci xale. ak ni muy nàmmee xel xel mi. day gaaw ak day gaaw. léegi ba maanaam bu maître bii bind leçon bi mosu leçon observation wala CM2. Uh-huh. nga xam du ay dix lignes. Uh-huh. moom bu koy bind mi ngi koy këru. gis nga bu ñuy ñibbi. Hmm. ci yoon wi lay lay jox kay bi kenn mu mu mu commencé resté leçon parce que saar yam yi tere gën a diis ah, boobu waaw léegi nag looloo tax sax man bokk na sëñ Maodo. loolu sax dama ciy profité la wax ne su ma soxla ci def waxtaan ci tëralunu njàng mi. ak ñun nuñ ko gisee. ak yan coppite lañ ci war a indi. loolu loolu dina am da nga koy invité ci émission bu mag ba di. jano bi jano bi loolu loolu loolu. loolu dina kañ lay a donc loolu thème bu nga noonu Maodo. su ma ñu waxtaan ci bis. incha allah non y a waaw parce que loolu moo tax man kooku sonaloon jaaxaloon na ma lool hmm. wax dëgg yàlla ba dama doon ñëw mu may raw hmm. te man xam naa li taxoon moo ma doon raw parce que man jàngoon naa alxuraan mais wàccu ma ko hmm. Euh, man am naa yi may na ma ma mën a xëccoo pour jiite postuler te texte yi bañu ko wax dëgg yàlla nag am naa droit ni man du ma topp ci kenn te am droit possibilité am premier léegi nag loolu man pour man gisuma lu ci bon <laughs> Euh, bi mu jugee ci CUSEMS e original bi CUSEMS euh, e authentique boobu yaa ko jiite. yaay secrétaire général euh, ndax mën na soppeeku sa bi. ah oui depuis depuis combien de temps d'ailleurs nga ko jiite. non ñun am récépissé. muy muy 4 ans en ah, léegi renouvellement bi kañ la. renouvellement bi xam nga ñun bi ñu ci ñi may dégg xam nañ booy toog a teg syndicat. Hmm. ba bala ngaa dem congrès. premier congrès bi lañ lay commencé wàññil mandat. Hmm. pourquoi parce que pour nga mën a

d'accord tamit loolu ma leeral ko ci kanam Sénégal bis ma demee congrès faluñu ma benn dinaa jàppale ki nga xam moom lañ fal mhm. te dinaa ko ne nekk syndicat pour mu gën a am doole parce que sama ndam lay doon syndicat maa ko déjà da ngay nekk candidat ci incha allah incha allah loolu la xel mën a nangu aussi donc maintenant mhm. rapidement ci mhm. loolu nga wax ni Cusems authentique ñu bëri damay dégg ñu ciy wax te li ñuy wax demewul noonu mm, li tax Cusems am ak Cusems authentique am mm. dafa am loo xam ne parce que syndicat moo moo moo réew moo am réew day am constitution ñu ciy tëkk tënku mm. pour buñ bëggee coppi ñu wax ne nii la ñu war a soppee hmm. syndicat ñun ay statut la ñuy am hmm. statut yi nag moo wax nii la soppee njiit yi hmm. statut nag wax ni bu fekkente ne ñaari candidat dañoo nekk ci région bi dañuy dem li tudd li américain tuddee ay primaire tuddewuñ ko primaire ci niñ ko bindee mais presque ñoo yem maanaam comme ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk candidat fokk ñu xëccoo ci biir région bi ñu bokk léegi nag malheureusement pour sama adversaire man dama nekkoon ci département 70 kese lan léegi nag ca seem yi nekkoon ci sama wet ak yi nekk ci wetam ku ne ànd ak sa mbër hmm. ñu ñëw nag ñu ne ñoom bu ñu jaaree ci yoon woowu hmm. man damay jàll ñu bëgg tëpp état bu région bi. Hmm. pour dem directement ci étape nationale bi. ma bañ. Ah. léegi nag texte yi loolu la war a wax léegi nag may leeral foofu sénégalais nga étape nationale boobu. Ah. pëccëxoo la parce que pëccëxoo boobu am na réew yuy def loolu xam par exemple ñun Sénégal sunu élection. Hmm. dañuy teg urne bi nee na Sénégalais yëpp voté la suffrage universel direct. Hmm. ñëpp ay voté directement États-Unis amul boobu. États-Unis par état la ñuy état bu nekk man damay jàll ñu ne léegi kon nañ teg système des grands électeurs bi ne teg urne bi ñëpp voté ma bañ parce que Hillary Clinton ci fàttali ñu ni déglu Hillary Clinton <laughs> mais ëppale na Donald Trump 100000 la ko ëppalee. te pourtant gañewul xamuta gañewul mais parce que grand électeur yi la perdre. ñoom tamit man Abdoulaye Ndoye bi ma doon xëccool boobu moo ma ëpp doole suñ tegee euh, urne yi. ñu ne nañ voté national parce que secrétaire général sortant moom la faraloon. wax jàppale leen ko mhm. waaye nag daa amoon étape bu ñu war a def avant yegg si foofu mhm. étape boobu nag loolu la texte yi wax mooy le système des grands électeurs mhm. léegi nag système des grands électeurs comme malheureusement pour lui maa a jiite ak ñi àndal te ñun ñaari département yi ñoo ëpp doole ci région de Dakar bu ñu àndee kun xëccool dañ lay gagné ah. ñu ne nag ñoom kon bu ñu fa jaaree daam hmm. bu dañuy gagné ñu ne léegi kon nañ tëb étape boobu dem directement def pëccaxu

moo tax moo tax ma bëgg a euh, rebondir foofu sax. ñëw ñëw ci parce que daam bi dama xam ne daam dégg wolof. moo tax itam ah. ma bëggoon rebondir foofu ñëw ci euh, euh, lan mooy layam layam yi yéen yéen <laughs> may gënal ay leftaki ay naka. boo génnee léegi. ñal wi léegi lan mooy layam layam yi. waaw non layam layam mooy ko xam ne la yaa ngi yaa ngi ngala ngala demoo gauche demoo droite day layam layam rek mel mel mel mel sal ko fu mu noor boo xam ne. loolu mooy layam layam yi. xam nga ñu bëri laaj lu tax tax man émission di ma neex parce que dafa dégg wolof xam nga ñun njàmbur njàmbur nag eh. ñun dañuy làkk wolof njàmbur wolof njàmbur njàmbur ñun ñun waaw mën nañoo maanaam tey jii ñun bu ñu nekkee hmm. mën nañoo waxtaan ak ñi nga xam ci ndakaaru gi lan juddoo hmm. bu ñuy waxtaan ak ñoom mën nañoo wax eh, ay ay ay kàllaama vocabulaire duñ ko xam hmm. maanaam duñ ko xam waaw ñun loolu am nañ ko ñun njàmbur njàmbur ñun am nañ loolu est-ce que mën ngeen ma defal benn benn benn faveur laata émission bi di jeex benn ngeen eh, sëkk benn waxtaan rek boo xam ne dalal li leer na man du ma ci dégg dara loolu mën na nekk <laughs> la nga ciy dégg du bari waaw euh, xam nga day ah. may terme yoo xam ne préparé <laughs> la a hmm. nga ay dialecte sax dañuy déggante hmm. tey jii boo demee États-Unis hmm. man dem naa fa ci ay état yu wuute yoo xam kii day làkk anglais kee day làkk anglais te ñu wuute gis nga ñu nekk Alaska boo leen déggee ñuy làkk anglais bokkuñu ñi nga xam ñoo nekk dans le Midwest donc te pourtant ñoom ñaar ñëpp anglais la làkk mm. mais ñee dañuy làkk anglais boo xam ñee pour ñu dégg ko day jafe mm-hmm. parce que du tee daañ dégg nag mm-hmm. maanaam mun ñoo wax ba jëw la cent pour cent mais day am yoo xam bu ñu ko waxee da nga toog seen waa kii li mu wax li mooy lan léegi nag loolu da ngeen ma ko may may ko mbokk yi auditeurs yi laata émission bi jeex <laughs> kon layam layam lan moo ko motiver bu dee bu dee créé woo <laughs> ko ko xam nga ñun ma ne léegi lan ah. ma ne léegi ko. ma ko xam ñoom xamuñu ko. maanaam hmm. noonu moom la quoi cest xam nga ñun. Hmm. Euh, wax dëgg yàlla man dama koy wax toujours waxuma fi lu syndicaliste enseignant yi waxul. Hmm. mais xam nga ni ma koy waxee laa wuuteeg ñoom. ndaxte man damaa mel ni ñii mel euh, ku mel ni Maodo mii loolu am na ko. maanaam ñi nga xam ne dañoo jaar ci école Jules série bi. jàng li ñëpp jàng. ba pare. Mm-hmm. te teewul ñoom nañ doon waxe ak seen. Ah, aada ak seen cosaan. ak seen i waajur ak seen i waajur nam leen yar ak yooyu dañ koo téye. Hmm. am ñoo xam nag ñoom man dama leen tuddee ñoom hmm. wax. Hmm. li ëpp ci li ñuy wax. ay baati nasaraan lañ ciy xeex ci loolu. ba nga xam ni euh, boo ñu dégloo ñuy wax da nga xam ni ñii kat euh, donte euh, ñoom jàng nañ ci fi ñëpp jànge ba yore diplôme yi ñëpp yore. waaye bu ñuy wax di nga xam ni ñii kat ñoom ci fa ñu yar yaroo fanu cosaanoo euh, tàggat nañ leen ci ba seen aada ak seen cosaan parce que ku wax euh, euh, kàllaama wax nga aada ak cosaan donc loolu mm. ñun la ñuy la ñuy téye bañ bañ bañ génn ci bañ a wàcc sunu ànd ba léegi waxuma lan moo motivé layam lay mi xam nga danga ko génnee rek mu tasaaroo ba ci réseaux sociaux yi et cetera et cetera lan moo kan wala kan moo taxoon nga nga nga nga xëy na xëy na wax boobu xeetu wax non xëy na amoon na ko mu dëgmaloon ah. mais xëy na loolu contexte lay laaj maanaam ah, xëy na jamono boobu laa oustaz bu ma yàqal sa lan moo motivé woon layam layam yi. <laughs> xam nga xam nga man. Euh, booba li ma wax ne nañ bàyyi layam layam ci de wax dëgg. Mm. mooy que ne sénégalais yi ay dof. Mm. jamono jooja li fi xewoon ñoom ñëpp gis ngeen ko. Mm. ku ne xam na ni ñun d'abord dañoo jàpp ni. réew mi euh, ay musulmans ay chrétiens ñoo fi nekk. Mm-hmm. ñu xam ne ñun danoo am suñu diine lu mu ñu wax ñu tënku ci même bu sa àll wu guddul xam nga ni. Hmm. mënoo tëb tëb rek jiñ nit ki njaaloo. Hmm. te amoo ci benn preuve. Hmm. c'est clair parce que loolu dañ koy tere. parce que ñoom ñi nga xam ne ñoom seen àll woo àgg na foofu. dañ naan la fokk mu nekk ñeent nit yoo xam ne. Euh, bu ma juumul. bokkuñu fu ñu jógee. du ñu yëgoo. te sax boo li ci gën a doy waar sax mooy boo boo fekkee ñaar ñuy def loolu. yow rek nga fekk ko de. Hmm. amoo wax ko dañ laa war a duma yow. voilà dañ laa a ah. <laughs> ko ma ko gisuma ko. Hmm. mais sama rôle du ko. quand même donc maintenant ma ne nag ñi ñoo ngi taxaw naan am na. Hmm. te teguñ seen bët d'abord te même bu doon ñoom kenn ñoo ko ci teg bët. kooku amul droit ko comme ni mu ko waxee. ma ma jóge ci loolu même bu fekkee dañ naan ma sukkandikuñ ci loolu ñun Sénégal. mais boo dégloo la xew ca kër ga. ña ko fekkee ñëpp boo leen dégloo. nga gis ne kii woo jiiñaate siif. Hmm. ne dañ koo siif moom boobu moo doon waajal mbir mi. Hmm. ñëpp gis ni effectivement ci enquête bi da doon waajal mbir mi man leen nag man damaa mës a gis ku ñuy siif muy waajal ñu siif ko. te moom boobu sax bi mu defee conférence de presse wone ni man waxatuma wax siif mais na wax ndax séquñu dara man leen non man néew ma séquñu dara de hmm. waaye siif amul parce que boo xoolee mbir mi lépp nga déglu ko parce que ñun duñu ay dof. juge yi sax fekkewuñ li xew gis nga ba fekkewu ko. xool lu jub lu xel mën a nangu. Hmm. mu ne diw yow yi yaa tooñ. te day sukkandiku rek. ci li ñaari parti ku ci ne ci feey li mu wax waaw ñun duñ ay dof. ñu dégloo ñaari parti yi leen wax. Hmm. déglu ña ko fekkee lanu wax. Hmm. déglu ñëpp ñi ci laale ci dossier bi li mu wax. day leer naa nañ moo tax boo xoolee sénégalais yi ña ëpp ci ñoom. da ngay gis ne d'accorduñ ni siif am na. waaye dara mën na faa am mais bu fekkee loolu ma éventualité la ñuy wax mais loolu éventualité bu ko mooy amul la ci leer. maanaam na amul loolu beneen domaine la. kon nangu koo xam ne dafay affirmatif ci mbir mi ne. lii am na. voilà ne siif bi am na. siif siif amul. c'est-à-dire que siif moom leer nañ viol mooy waaw nga ñëw forcer ko loolu moom. loolu moom wax dëgg yàlla ñi ñi défendre xale bu jigéen bi daw si. loolu la ñuy wax ne am na. voilà moom laa ñooñu nag. li ñuy def man jàpp naa ni euh, wax dëgg yàlla euh, ci laa leen wax ne nañ bàyyi seen layam layam ji te mm. wax dëgg parce que dëgg gi mm. ñun Sénégal yëpp xam nañ ko mm. mooy même bu fekkoonte ni am na lu am seen diggante man wóoruma Euh, parce que ay njiit lañ. Mm-hmm. mais bu boobaa même bu amoon damay wax man ni. Mm-hmm. ñoom ñaar ñoo ko séq parce que ñaari mag lañ. c'est privé te c'est privé. Mm-hmm. te ñoom bu ñu ëllëgee ñooy rendre compte yàlla subhaanahu wa taala man. loola du ma ca dugg parce que du sama domaine intéressé wu ma intéressé wul procureur intéressé wul kenn. lenna kañ la doon intéressé procureur mooy ñu defoon ko koo xam ab tuut tànk la. boo xam ne amul fukki at ak juróom-ñett. maanaam mineur la parce dañ lay wax ne d'accordul parce que mineur du am consentement mhm. mais bu fekkee ñaari mag lañ ci sunu réew ni muy doxe mhm. yoonu kenn newu ci mhm. loolu rek laa wax man ma nag procès moral bi bu mu ko jaawale ak nga baal ma yoonu kenn newu ci à partir du moment amul amul forcé euh, aussi on d'accord parce que forcé bi du ci mineur bi kese wante bu fekkee ne dangeen ngeen sëkk aussi que nit ki nee la non nga ne ko oui par force loolu it euh, beneen xeetu euh, kii la boo xam ne mais lu may moo tax mu ne la gëw ma ne viol am na parce que la wax moom la waaw léegi léegi ñiy défendre euh, ne viol am na. ñoom itam ñu ngi ci la ñu jàpp. Ah, euh, kenn ci ñoom am na lu mu déclaré sax jëmale ko ci suñu gan tay bi di Dame Mbodj euh, ne bëri xam-xam da ngay wax rek. <laughs> waaw loolu déglu naa ko xam nga loolu moom c'est les jugements de valeur. mais wax dëgg yàlla koo xam ne jàng nga ba comme ne ko ni ñuy waxee daawul nangu ko ko raw. Hmm. wax dëgg yàlla. Hmm. li ma jël deuxième bëriwul ci sama cursus. Hmm. Euh, beneen bi mooy ba université ku ne xam na ni. Euh, def naa fa cursus boo xam ne kenn werantewu ko samay moroom yi ma jàngandool ñu ngi may dégg. Euh, bi ma paree am na am sama maitrise parce que mënoo nekk maîtrise bi nag nekkub cuune. bi ma paree affecté en Casamance. Mm-hmm. Euh, loolu jafe la bariwul ñu ko am. Mm-hmm. Euh, ma nekk meilleure cellule maanaam ñi nga xam man maa doon encadré professeur anglais ma fa fekk ñu nommé ma meilleure cellule yóbbu ma États-Unis ndax loolu. Mm-hmm. ma dem jàngiwaat ñëwaat mm, defaat ay jaloore yu tax ñu war maa yóbbu Angleterre ñaari yoon. wax dëgg yàlla nag ma am sama déeyaa ca hmm. eh, ci ci koo xam dañ naan xamul dara hmm. jàpp naa ni eh, kooku waxu daf lay wax xam nga nañ waxante dëgg hmm. ci koo xam ne tey jii dégg nga eh, dégg nga dégg nga ni mu ko waxee en tant que en tant que en tant que professeur ah. d'anglais ma ci boole samay activité yoo xam ni une grande multinationale fii ci réew mi parce que man damay def en même temps interprétariat ci langue bi gannaaw ma ko mënee jàngale te nañ def sondage ci école yi ma jaar ñaar rek rek la lycée Aline Sitoé Diatta bu Oussouye ak lycée Limamoulaye bu Dakar nañ def sondage. Mm-hmm. ndax man mi euh, nekkoon naa professeur anglais boo xam si xarañoon naa ci li may def euh, bi ma paree ci loolu dama cee boole samay activité di def traduction ak interprétariat am na une grande boîte fii ci réew mi boo xam ne lu mu gàtt gàtt mën na def dix milliards par par an. Mm-hmm. ma nekk seen traducteur nga xam ni ba bi ci guddi laa leen mujj a traduire un document de huit pages moom dafa jàmpoon boo xam ne mm-hmm. damaa xëdd ba pare. doo avant ma ñëw ci yéen. te wóoluwun kenn ku dul man nag. te ko xam domaine ba ñuy liggéeyee nekk dans le transport maritime nga xam ni. Mm. domaine bu jafe la. Mm. bu technique. Mm. boo xam ni euh, bu ñu ko joxee yenn traducteurs yu bëri duñ ko ñemee laal. kon nag bu ma leen traduiral depuis quatorze ans. te mosuñoo am benn sikki sàkk ci li may li may li may sotti. jële ko ci tubaab yóbbu ko ci anglais wala jële ko ci anglais yóbbu ko ci tubaab kooku de jàpp naa ne boo nee dara hmm. ah jàpp naa ne wax xuloo la quoi mais dambuj moom wax dëgg nga maa mën lu ne mën nga maa jiñ lu ne dafa jóge ci intellectuel boo xam ne également de haut niveau la nekk fi avocat bu mag bu ñu ràññee ci àdduna bi yëpp kooku tamit kooku tamit bu waxee loolu war na noo mën a jàpp ne loolu lu am la mën naa la poser benn question Nicolas hmm, man euh, fu mu nekk ni kii la ma ci jàng mooy. kàddu yooyu nga xamee ne jóg na. Hmm. jëm ci daam. Hmm. na ku ko wax. Hmm. na ko xamul dara pourtant daam te mën na ko xamoo dara. vice versa. te wax naa ko sax. Ah, ah, wax nga ko wax naa ko <laughs> xamul tax. li ma ko waxee mooy dañoo daje ci débat mooy débat bi nga parce ah, yaa ngi layam la. yow mi yow mi kañ yow mi kañ. da nga bëgg ñu dugg ci te bëggoo cee dugg. léegi fu mu nekk nii dugg naa dugg naa ci biir bu yàgg. débat boobu ñu amoon ma moom. Euh, ca laa ko waxee loolu ne ko yow. Hmm. Euh, sax xarañte mënees na koo seetaat parce que dossier yi ngay dugg yëpp. Hmm. pour yore sa làmmiñ bu rëy lay doon mais du question da nga parce que avocat yi nii coow fii Sénégal moom bokku ci. Hmm. nañu waxante dëgg rek maanaam euh, ñun ñu xam nañ ni réew mi doxee fii cabinet yi nga xam ñu ngi leen fii coow. moom cabinet bokku ci mais nag dossier yi am coow yëpp moom mi ngi ci. maanaam porte presse lay def c'est-à-dire que moom nan ko jox dossier boo xam ni coow coow moo ciy génne client mu dem def conférence de presse coow loolu ngeen nekk da naa loolu lépp d' naa nag fi ma ko wone ne ko cuune la hmm. te bi ma génnee ay moroomu avocat am wax nañ ma ne ma sa traduction moo gën a wér hmm. pourquoi moo gën a wér hmm. mooy li ñu tuddee flagrant délit yéen xam ngeen dara parce que am na jour boo xam si fii leer mën ni presque liggéeyu leen parce que boobu xeex bi metti na la ko de recherche dem koo xam ne am mbalaanu kiiraayam ñu ne buñ ko dindiwul mënuñu koo jëli. Hmm. fokk ñu dindi mbalaanu kiiraay hmm. ñu ne nag mais mbalaanu kiiraay gi mën nañ koo bañ a dindi su fekkente ne dafa am flagrant délit. Hmm. flagrant délit mooy na ko nañ koy waxee ni ci niñ koy définir ci moom na ko définir woon mooy coow li ci am moom ñëpp yëg nañ ko kon loolu loolu bu dul flagrant lan mooy flagrant délit maanaam jàpp ne média yeeg ñëpp a ngi wax ma ne ko loolu du flagrant délit c'est-à-dire dayoo ki moo tax mu siiw. moo tax mu bëri ki mais loolu du flagrant délit flagrant délit buñ koy wax da nga koy associer fa mbir ma xewee loolu la ñuy tuddee flagrant délit maanaam loxo ci poos wala am ndiiraan topp la ci dara. maanaam nga ñëw ñëw ñu ni par exemple fii ab xale bu jigéen yuuxu na fi tooba ci àgg rek yuuxu ci néeg bi. Hmm. daw yuux ñu hmm. hmm. ma topp ka kam kamay ma ñuy daw di toppanteeg moom di daw. am ndiiraan topp ñëpp gis di ñëpp gis ne ko mu ngi nii. ñu ñu ñu daw di ko topp pour dimbali ndaw say wax ne dañ koo siif. loolu bu amoon day nekk flagrant délit. mais loolu amul parce que ndaw si ci boppam ba mu jiiñee ne dañ koo siif. Hmm. moom moo dem jël euh, reeram ca frigo ba ci borom kër gi ni mu ko waxee génne daal di reer. Euh, ci reer boo xam ña ngi ko doon jël ci hôtel di ko yónnee ci ay fan di ko ñu koy engrossé maanaam di ko engrossé di ko di ko di ko xont pour mu gën a tax mbir mi waaw léegi léegi nag moom euh, loolu bi mu amee léegi nag man ma gis ni wax dëgg yàlla ñi ay tappalekat euh, léegi nag moo tax man bi mbir moomu amee ah, ma ne nag kii moom bu ñu waxalee yàlla mbir mi dafa leer naa ñi ni hmm. foofu flagrant délit amu fa ba mu pare tamit moo jël téléphone am ni leen aywa ñëw leen jël si ma li ngeen ma laajoon am naa ko hmm. ah, ñu laaj ko moom kër gi ne ko foo jëm mu ne man damay jëlub Jakarta moom laa war a jël euh, bu moomuy yóbbu ñu eh, borom kër ga ne maa ngi yéeg ci kaw terrasse di siin ab oto bu ñuul 4x4 bu ko fa jëlsee. Hmm. wa maanaam moo ne am na ñu doon xaar. di ko xaar di ko góolu. Hmm. pour que buñ ko siifee ba pare ñu dem jëli ko. Hmm. <laughs> man damaa mos a gis nii ñuy siif ngay waajal sëb siif. <laughs> ba noppi ci biir kii bi enquête bi ñu laaj ko ne ko waa yow eh, ci biir enquête bi yow bi ndaw si eh, gi nga doon maasee ndool waa ji bi mu la laajee benn instant nee na yow da nga ne ko génnal saal bi may ñu maag moom wet mu ne waa maag wax ñu ko ah. yaa ko wax mu ne waaw ñu ne ko lu tax mu ne waaw parce que euh, moom ak waaja dañ cee déggoo kon kon loolu leerul ni kon. Hmm. li ñuy waajal moom d' accord na ci. Hmm. waaw bu dee am na fa bu dee am na fa hmm. léegi beneen bi mooy. ñu ne ko yow ndaw si di jiñ na la ni. foofa euh, jéem nga ko faa may xaalis ba ci ba ci bi fi ngeen daje ci biir section de recherche gendarmerie. ndaw si nee na benn moment nee na la ay yow lii lu ko fi jar. nga ne ko waaye téema jox cent mille nga génn ci coow li. nga dem sa yoon génn ci dossier bi waaw mos ngaa gis ku ne violé muy jël xaalis di joxe maanaam borom kër gétt ni ñëw na ay ñetti yoon ci man naan ma waa yow diw du ngeen ko woo mu ñëw xanaa du ñëw maase wu waaw nag sëñ Maodo ñun du nay dof. c'est quoi ma ñun dañuy analyser lu ñu waajal <laughs> waaw waajal maanaam euh, siif. bu ca waajal xësee am. Hmm, nekkatul siif mënatuñ ko nekk siif loolu rek laa wax man. néew ma dara amul seen diggante parce que man du ma yàlla fekkewu ma ko. Hmm. mais lu mën a am. Hmm. du siif loolu rek laa wax man. très bien léegi nag moo tax moom ba mu bëggee définir flagrant délit. Mm-hmm. comme ni coow li bari ci mooy média ya wax ñëpp a wax ah, sénégalais yëpp mm-hmm. eh, nag eh, eh, nag xam naa ne am na ñoo xam ne mere nañ la

kooku kooku dafa am benn presse en ligne. Mhm. bëggoon a jaay. Mhm. ab émission mhm. <laughs> comme léegi ku lu wax rek da nga ci dugal dugal dàmbuj pour nit ñi suivre la. nest pas léegi mu daal di dem jëli ko géewul jëli ko nguma ngeewul. daal di koy andi benn étudiant la euh, euh, fii à Dakar. Euh, mais temps yi ña nga ma ma ma nga ma nga nguma ngeewul maa ngi moom. sunu ñaari waajur ñoo bokk ndey ak baay. man kon bàyyi laa ci moom c'est vrai. maanaam bàyyi laa ci moom mais nan ko leeral. maa ngi moom maa maa ngi waajuram wu góor sunu ñaari waajur yu góor ñoo bokk ndey ak baay kon man baay laa ci moom nga ci moom waaw léegi nag mais ñoom dañ koo présenté ko bindee léegi loolu xam nga euh, ñoo ko tey après parce euh, hmm. comme man doom joo xam ne man maa ko sukk jur noonu lañ ko présenté ah, ci man hmm. ah, léegi loolu lañ def erreur boobu lañ def ñoo ko tey nag hmm. ma leen wooye sax jégglu nañ ne leen déet waay mais wax leen ni man leen te ma leen jox turu baayam nu mu tudd ngeen bind ko ñu ne man leen dindi leen sama turuwaay. Hmm. ah ak sama photo bi ngeen ci def ak yëpp. wax <laughs> ah, a ngi may toj. <laughs> mais nag damaa eh. boo ca nekkee di ca lawal dem na sax ku ne man leen def leen ma ne ko loolu jaru ko. maanaam mais dama leen wax rek leen lii bàyyi leen yooyu waaye wax bi gën a hmm. man du sama kon sa doom sa doom bokkul pastef yow bokkoo pastef kon euh, dam euh, boo bokkul pastef bokkoo APR bokkoo yaa ngi société civile. bokkuma fenn waaw mais syndicat yi société civile lañ. société civile Sénégal xam nga xam nga mooy société civile xam nga Sénégal euh, Maodo lu ko yàq. Ah. gars yi dañoo jàpp ni société civile mooy ñi nga xam ni dañoo créer tudde ko nu leen neex rek ñooy hmm. ñëpp ñi nga xam ni xëccoo wuñ nguur. Hmm. xeexuñu ki yore nguur. Hmm. moom lañ tuddee les corps intermédiaires. ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ci réew mi réew mi soxal leen parce que réew bu yàqoo dañ cee bokk ñoom it dañ ci am seen xalaat. mais nag ñoom demuñu di xëccoo. maanaam xëccoo nguur nguur nag bu ñu koy wax du assemblée nationale du euh, ay ay élection locale élection locale bu ñuy wax nguur mooy mooy kii yore lenge yi. président de la république gouvernement. ñooñu képp ku ca bokk bokkoo société civile. mais même boo mën nga nekk société civile dem assemblée nationale mën nga nekk société civile dem di jiite ab collectivité local wala bokk ci ab maire yi loolu kenn terewu ko. maintenant nag ñun Sénégal dañoo jàpp ne ñooñu bokkuñ moo tax société civile bi. xalif généraux yi ñu ngi ci d'ailleurs loolu tax bu réew mi naree tàkk ñu wax. Hmm. xalif généraux yi ñu ngi ci. kilifa yi ñu ngi ci société civile bi ñoom moo ñu dem. ñaani leen d'ailleurs hmm. coow li fi am nii. Hmm. mais danoo ñaan kilifa yi ñu dugg ci. parce que dëkk bi tàkkoon na tàkk goo xam ne. bu ci kilifa duggul woon musiba man jàpp naa ne loolu loolu ñuy duggee ñoom bu jaxasoo. looloo tax ñoom ñoom importance sax ñu gën leen a dooleel ci biir biir société civile bi ñoom ñoom ñoom suñu kilifa yi. kon société civile ku ne xaj na ci. ku ne xaj na ci képp koo xam ni. Hmm. yow yaa ngi yëngatu. Hmm. maanaam imaam yaa ngi ci. Hmm. Eh, eh, eh, syndicat yaa ngi ci association yaa ngi ci mouvement yaa ngi ci xale généraux yaa ngi ci kilifa diine yi de manière générale ñëpp ñi nga xam ne ñoom. bokk nañ ci réew mi am seen xalaat ci réew mi nag. buñ leen ci boddi du nit ñi defal ni ah. réew mi ñiy politique rek ñoo ko moom. du noonu. nit ñi yooyu. léegi dañoo occupé espace voilà ñoom ñoo occupé espace mais nag bu ñu xëccoo seen biir. dafa am ñu ne seen digg. ñoo xam ne faruñoo ñee. faruñoo ñee. ñooñu ñëpp nag képp ku ci taxaw ci position boobu rek société civile nga bokk. macha allah Dame Mbodj euh, di sunu gan tey ñu ngi na torop torop torop macha allah euh, gis nañ ne euh, la ma la ma la ma dóor noonu bëri na ciy soppe bëri na ciy soppe yoo xam ne dañu koy apprécier bu baax a baax dañuy gis seen bopp ci moom bu baax a baax ci dëggu gi nga xam ne moom la ñuy wax ci moom également dañ ko ci félicité ci plateforme bii di YouTube ak Facebook ak réseaux sociaux yi de façon général dama am ñett sujet yoo xam ne bëgg naa tënk ko rapidement ak Dame euh, mais Dame da ñuy jàppale rek ñetti sujets yi ah ça va être euh, en vrac du rac-tac ah on est d'accord kon ñu dem ci euh, ñetti sujets yooyu benn bi damay tàmbalee ci emploi des jeunes xam nga amoon na fi forum et cetera am na ay annonces yu fa jibee ca centre Abdou Diouf et cetera ma brossé waale ci recrutement cinq cinq mille enseignants yi ñu annoncé xam naa loolu war na neex sa xol de parce que Macky léegi mu ngi ci emploi des jeunes mu ngi ci recrutement ñuy wax du du lépp du lépp a bon donc lii lu baax la da a ko jox aussi. Mm-hmm. xam nga nag ma Maodo mii jox ko kon moom kenn xaaru ci moom muy recruter. kenn ko résultat aussi cest à président tamit bu ñu jox milliards. Mm-hmm. mais bu deful dara kay musiba am. Mm-hmm. fokk muy def. parce que dañ koo jox nag alalu réew mi. kuy fayee ko ñu comp ci sa salaire jox ko. muy ay ay ki impôt yoo xam dañ koy versé ci gafaka nguur gi. képp kuy liggéey dara ñuy jël di la jox muy entreprise ku mën a doon ñëppay cotiser ci gafaka nguur gi. loolooy alal jën ko jox di. Mm-hmm. Ah. a doxal. waaye mu def loolooy yoon moom daa war a def ndaxte dañ koo jox leen moom pour mu def. maintenant nag loolu mu def baax na 5000 enseignants ñun kay lan cee wax rek ah. mooy que ni nan ko bëgg a doxale lañ d'accord mooy maanaam ñun dañoo jàpp ni daa amoon avant li ñuy tuddee quota sécuritaire maanaam jël ci yaama neex hmm. ku am doole ci gouvernement bi ñu jël sa sët wala sa jarbaat wala sa doom dugal ko ci muy jàngale ñu ne loolu baaxul ci njàng mi hmm. léegi depuis 2011 képp kuy jàngale da ngay def concours hmm. léegi nag ñun jàpp ni def nañ ko fukki at ñuy def ay concours képp ku fi jàngale ci année yii euh, fukki at yi ci concours nga jaar doog a jàngale moo tax ñu ne daa yokk 5000 ren jot naa jël 3000 jàngalekat mais 3000 jàngalekat yooyu ci concours lan jaar. Mhm. waaw léegi 5000 am yu mu yokk mais na jaar toujours ci concours rek mu jeex ñëpp yem ci. maintenant nag ñu naan ay nañuy hmm. da ngeen ko àggali ci jano bi n'est-ce pas. mooy li ñu li ñu wax sànq seen seen jano yéen ñaar. Euh, beneen bi euh, mooy euh, coowal suuf mi nga xam ne jamono yi lëmbeeti na Sénégal ñu ngi dégg li xew ca Ndingler ak Sedima ak Njilax defe naa noonu la ah, ñu commencé kii nan nan nga gisee coowal suuf ni muy récurrent wee ci Sénégal. man de coow loolu bi mu amee daaw bind naa ci article mu ci ay ay journaux publier nañ ko lu ma juróomi journaux publier nañ sama article macha allah jox ma page entière ma wax ci li ma xalaat nag parce que Sénégal la. Hmm. am naa droit xalaat ci li ma gëm man mooy euh, état Sénégal lépp moo ko andi. Hmm. mooy état nag mooy lépp li bànqaas yi nekk ci biir état bi mooy maire yeeg parce que ñoom yooyu lañuy def. Hmm. seen tappale jàmbur su mu daan bay depuis ci ay maamaati maamaam. nga xëy xëy rek dem wut cib délibération jox ko borom alal. muy borom alal bu dëkk ci réew mi ak boroom alal bu dëkk bitim réew benn du ci yoon parce que jël foqarti li askan wi moom nga jox ko keneen li ma gëm mooy askan wi dañ leen a war a def ay entrepreneur maanaam bu ñëwee ci village jilax wala ndengaleer hmm. ñu ngi gis ni seen suuf si yaat na yaat ko mun ñoo valoriser lépp ñu ñëw organiser leen ñu nekk ay euh, euh, entrepreneur yoo xam dañu ñëw def ko def joint venture ak ki nga xam moo am alal ñu am ci ay part ca marché ba hmm. ñu am ay part ca entreprise ba bu dee la mu fa bëgg def lu baax la ñu waxtaane ko ñu teg projet bi ñoom village waaye am ci seen i part tax ñu mën a suqaliku hmm. ko ñoom jël benn franc symbolique jox leen. ñoom ñu dem kon ne di di di xëy di bay ba ba ba màggat loolu jàpp naa ne loolu baaxul. kon nag état li ma jàpp. mooy comme Babacar Ngom ci euh, affaire boobu moom moo leen ëpp doole. moom Sedima. man li ma jàpp mooy bu mu jaay doole baykat yi. na ñëw waxtaan ak ñoom tegal leen projet boo xam si da leen cee dugal ñoom bokk ci capital bi ñu am ca seen wàll. mu jël seen xale ya fa nekk ca poste yan mën a am bu dee am nañ profil ya ñu liggéey am ñoom am ñu def un accord gagnant gagnant. n'est-ce pas lii moo gën ñu jaay doole baykat yi. Hmm. parce que loolu day nërmel réew. Hmm. man lii laa gëm moo jeex na euh, Dame Mbodj euh, bu mujj bi euh, dafa concerné football bi ak li fi mujjee xew. ak li kaf génnee ci euh, ci xayma jamono yi ñu toll yow xam nañ ne ancien joueur nga yaa ngi yaa ngi doon euh, évoluer ci ASC Cosaan du noonu. bu géewul mu ngoog bu géewul <laughs> mu ngoog kon euh, nekk nga aussi diplômé d'arbitrage ah <laughs> maanaam kon kon kon yow xaw nga évoluer tuuti ci ci ci football bi de. mais Maodo Maodo saa na gëstu na ci bi il faut mu xool <laughs> kon kon maanaam football am na am na loo ci xam non non. gisee mais mais mais laa woon nag ci football moom. man ab latéral gauche bu cuune laa woon nag. waaw am xadar. Ah. dama ko fàtte mu géewul. waaw Assane Fall keroog dañu tase benn ailier bu gaawoon. Eh. bu mën a football mi ngi eh. géewul. Eh. dañu tase. Hmm. man ak boo daan am match ñun la suba dàmbuñ ngay dajal li ngay aay aay doo nelaw mun ma non a nelaw sax mais dafa am tëdd ba guddi xalaat ko. <laughs> daan ne noo dàmbuñ cest à man cuune laa woon. mais li may cuune cuune dama àndoon a xadar latéral gauche bu saf sap laa woon donc bu la sa entraîneur woowee di la jox consigne sax damay ñëw di déglu lim lay wax. <laughs> foo jëm ma jëm fa xoolal xam nañu xoolal li ñuy koy takk rek. man dama lay takk. doo man comme du ma la may dara. du ma la comme ni may dem ni syndicat du ma la may dara lépp du ma la may dara maanaam yow du ma chaque minute maa ngi lay surveiller du ma la may dara. <laughs> léegi sama élié sama élié. Ah. du ma ko may dara. ba ba match bi jeex déedéet du ma ko may dara. moom kay ba match bi jeex du ma la may dara foo jëm ma jëm fa booy naanee ndox sax ca sa banc ma dem fekk la fa fa ngay naanee ndox maanaam léegi <laughs> loolu laa doon def nawetaan. loolu de loolu de wax dëgg yàlla doo ko may dara man noonu laa doon def du ma ko may dara léegi nag. <laughs> loolu moom dëgg la rek daal kooku du gaaw a jàll de. dama du ma ko may dara nag mu dut ma dut bu graaw mais maanaam maanaam pour mu réussir ko lu bari ci match moo jafe. parce que dama ko dul may benn espace. n'est-ce pas marquage à la kilo marquage à la kilo. n'est-ce pas mais mais mais tout ça pour dire que am nga quand euh, xam-xam ci wàllu football. Euh, rapidement ci tënk rek nan nga gisee euh, jàngat bi nga xam ne CAF def na ko ci bu mujj ne li jëm ci wàllu homologation. Ah stade yu Sénégal yi. Sénégal amu ci benn boo xam ne. normes internationaux yi respecté na ko. waaw man hmm. yàlla loolu. xëy na suba sax comme yow euh, da ngay daan dalal Matar Ba. Mhm. Euh, xëy na da nga ci waxtaan ak moom mais man li ma jàpp. Mhm. Sénégal xam nga li suñu jafe-jafe Sëñ Maodo. Mhm. mooy ñun dañuy mën a defar mais mënuñoo téye. maanaam stade yi ñu fi defar yëpp bi ñu leen fi defaraatee ñun suñu problème. mooy ñun téye dara yàgg. lañ mënul te pourtant alal ju bari lañ ci def alalu askan kon man jàpp naa ne Matar bu ñuy. kon kon bu ñuy defaraat. kon kon jàpp da ci war a bëgg. maanaam bu ñuy tabaxaat ay stade ak comprendre peut-être fi may waxee. je crois que sëñ Maodo. li ma bëgg foofu. Hmm. mooy gis nga defar baax na hmm. Eh, stade yi li ñu leen di defar defaraat dafa bëri gis nga wax yi dañ ciy def nag liy cat li mooy bu leen ko joxee ñoom stade bi du yàgg gis nga euh, fee ñuy làmb ji mm-hmm. euh, arène bi ah. actuellement gis nga la fi fan yee fi doon commencé ko yàq mm. ci c'est un mm. alal ju bëri lañ ci def maanaam ñun Sénégal danoo gaaw ci yàq loo xam ni yeneen réew yi loolu lañ ñu mane buñ et puis dama ci ruus nag xam nga dama si. waaw bu ñu demee ba ñuy Mauritanie. Mm. am na stade bu ñu homologué. Mm. ñu ni Guinée. Mm. am benn stade bu ñu homologué. lii gàcce la ci ñun moo tax moo ma ne. waaw ma ne ma nag lu fi ministre bi nar a wax bu moo tax daam ma ne la kon bu ñu dee tabax yu bees tamit loolu da ngeen ko war a rafetlu puisque yaa ngi wax ne euh, li ñuy defar di defaraat dafa bëri mais bu boobaa ñu ngi defar yoo xam ne yu bees la yoo xam ne nouvelle génération la. loolu tamit war ngeen ko rafetlu non non man d'accord naa ñuy yokk ay stade voilà naam bi ma demee ndar temps yee euh, am benn euh, conférence bu nu bu bu Imaam Ndaw doon def. Mhm. Euh, invité ma ci. Mhm. ma demoon ndar fekke ko. Mhm. bi ma demee journaliste laajaale nañ ma. bi conférence bi tase ni ma yow loo xalaat ci stade maire Babacar Seye bi ñu bëgg a jëlee fii yóbbu ko ci àll ba. maanaam da ña ngay xeex ak seen maire Mansour Faye. looloo xëy na ministre bi ñuy xëy na na ci am lu mu ci wax suba mais. man li ma jàpp mooy. symbole la stade boobu. parce que man dama jàngee ndar. symbole la bu fi mu symbole la pour Saint-Louisien yi. Hmm. Euh, man jàpp naa ne ñu tuddee ko kilifa nag gu mag ci réew mi man jàpp naa ne bu ñu ko fa bëggee jëlee baaxul teewul mën nañoo defar beneen stade bu ñu amee. bu ñu amee beneen stade feneen. xam nga ndar am na espace. ci ndar yi. may am ay côté Gandon. ak ay ay ay côté Raw. zone yi nga xam ne moo génn ndar. mën nañoo dem ñu def fa yeneen stade. Hmm. yoo xam ne du tax ñu dindi booba parce que booba fi mu nekk symbole la pour ndar ndar yi sax bu ñu ko fa dindee day am lu mu wàññi ci ñoom. d'accord waaw donc loolu jàpp naa ne du lu baax. am na solo santati bu baax di ko gërëmati ci oyof bi ak euh, vraiment disponibilité bi également c'était un plaisir ñu partager plateau bi ak yow balaa service commercial di xëccati sumay nopp oustaz Maodo Faye sant naa la gërëm naa la Dame Mbodj mboolem sénégalais yi y a énormément de réactions vidéo bi daa ngeen ko gis sunu chaîne YouTube bu ci kanamee tuuti ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax jërëjëf ci wuy si bi euh, na mu ko waxee nag mooy euh, ëllëg ministre des sports lañ fiy dalal en beauté monsieur Matar Ba mooy doon ganu koor gi ëllëg mais ça c'est et à demain jaa ngeen jëf ci darajay xadiis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa rahmaan ci daraja ay met yi ak